nawet gi gannaaw tunnel bu Soumbédioune université Cheikh Anta itam naka noonu fu ci mel ne cité Claudel jàpp buntu faculté bu médecine foofee nag kon taw ba ay jafe-jafe yu bari lafa jur Chérif Dia ak Pape Fall. cité Claudel fees dell ak ndox étudiants ya fa nekk ngir ñu dem ak dikk faaw ñu xuus ci ndox mi amphithéâtre yi tamit pour ñuy egg ca danañ xuus ndéedéet ñi ngi nekk ci jamonoy examen loolu gën a indi seeni jafe-jafe. waaw kon nii ngeen ko gisee noonu kon foofee nag booru Gueule Tapée la marché Gueule bi ni ngeen ko gisee gis ngeen waajooju moom ci biir ndox mi kon loole yëpp ngir won leen rek ne ndox yi sotteeku tey jii ci ndakaaru njaay ay jafe-jafe la fi indi rax ci ca dem beeg dikk bi gis ngeen taxi boobu nun nu ni mel oto yi yëpp daal di jànkoonteel kenn foo jaar dem beeg dikk bi yëpp mujj sooxee daan ci dellusiwaat ak yenn ci xibaaru nasaraan yi